ñeent fukk ak juróom ñett Daawuda buur bi ak li ko Yàlla dig asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoon njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub tey ji ñu ngi wéy ci nettalib yonent yàlla daawuda am na ñaari njàng gisoon nanu ni yàlla tànne woon waxambaane wa daawuda ngir mu nekk ñaareelu buuru israel waaye tàmbaleegul woon nguuru bés bi ko yàlla fale yàlla gantu woon na sool di buur bu jëkk ba ndaxte faalewul woon coobarek yàlla waaye yàlla seedeeloon na daawuda nii gis naa daawuda doomu yese ku ma neex ci sama xol te dina def lépp luy sama coobare ci sunu njàng mi weesu gisoon nanu ni daawuda xeexe woon ak ponkal mi di goliyaat ba daanele ko mbaq ak xeer ak ngëm gu wér ci yàlla jiy dund léegi nag nanu wey ci nettalib daawuda ba gis ni mu wuutoo sool ni buur israel nu ngi jàng ci téereb samuel sar fukk ak juróom ñett mbind mi nee na gannaaw bi daawuda reye goliyat di waayu filisti ji ba ñëw te xarakat yi dellusi jigéen ñi génne ci dëkki israel yépp gatandu sool di woy ak di fecc tama yi ak xalam yi jëpp te ñuy sar xolle jigéen ñi woy de awonte naan sool rey na ay junni te daawuda rey na ay fukki junni sool nag mer loolu ba fut te mu naqari ko lool mu ne ñu ngi jox daawuda ay fukki junni te man ñu di jox ay junni xanaa nag dara deseetu ko lu dul jël nguur gi bi loolu xewee nag sool dale ca bés booba di xool daawuda bëtub ñaan noonu mbind mi day nettali ni bani israel bëgge woon daawuda lool te lu ñu gën a bëgg daawuda sool gën ko bañ ki ñaan daldi jàpp xolu sool te noot ko ba mënatul xalaat ci dara lu dul nu mu def ba rey daawuda naka noonu daawuda waroon na daw nëbbu ca màndig ma moom ak euh, luy tollu ci ñeenti téeméeri góori israel ñu àndoon ak moom mbind mi daf nuy nettali nag ni sool aki xarekatam doon rëbbe daawuda aki gaayam ci biir àll ba sool def na kem kàttanam ngir jàpp daawuda te rey ko waaye mënu ko ndaxte aji sax jaa ngi ànd ak daawuda wante sool sonnaloon na daawuda lool diirub juróom ñetti at yu yéex daawuda aki gaayam war nañu daw merum sool buur bi waaye war ngeen xam ne kiñaan ak mer mi sol feeñaloon jëme ko ci daawuda taxul woon daawuda bañ ko lu tax daawuda bañul woon sol mi koy wuta rey daawuda mënu ko woon a bañ ndaxte daawuda àndoon na ak yàlla àndoon na ak yàlla mi euh, fenkal jantam ci kaw ñu bon ñi ak ñu baax ñi ni ko mbind mi waxe naan képp ku bëgg sa mbokk ci yàlla nga juddoo te xam nga yàlla ku bëggul sa mbok xamuloo yàlla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 bind mi nee na am na ñu ñëw ci sol ne ko daawuda mu ngi ci màndik mu yi sool jël ñetti junniy góor ci ñu ñu tànn ci israel gépp dem ngir rëbb daawuda ak gaayam ba ca tundi sikkati àll ya noonu mu ñëw ba àgg ci ngeddi xar yu nekk ci yetu yoon wi te foofa am na fa làquwaay mu dugg ca ngir def aajoom fekk daawuda ak gaayam ñu ngi woon fu sore ci biir làqukaay ba bi mu ko defee gaayi daawuda ne ko tey ji mooy bés bi la aji sax ji ne jébbal naa la sab noon ci say loxo def ko li la soob daawuda jóg dagg ndànk lafu mbubu sóol gannaaw loolu nag xelu daawuda jaxasoo ndax li mu dagg lafu mbubu sóol noonu daawuda ne ay gaayam nama aji sax ji musal ba duma def jëf ju toll ni gàll sama loxo sama boroom ki aji sax ji fal ndaxte mooy ki aji sax ji fal ci kàddu yooyu daawuda dëpp ay gaayam te tere leena dal ci kaw sool gannaaw ga sool jóg génn làquwaay ba tey dem yoonam te daawuda moom itam jóg génn làquwaay ba ba noppi mu topp ci sool di ko woo naan cey yow buur sama sang sool geestu gannaawam te daawuda dëpp xar kanamam ci suuf di sujjóot daawuda ne sool lu tax ngay déglu waxi nit ñi la naan daawuda mi sa musiba lay wut gis nga léegi ci say bët ne aji sax ji jébbale na la tey jii ci samay loxo ci biir làquwaay bi ñu ngi may xiir ci ma rey la waaye ñéeblu naa la te dama wax ne duma gàll loxo mukk sama sang ndaxte mooy ki aji sax ji fal gisal nag sama baay xoolal sa lafu mbubb mi ci sama loxo ndegam dagg naa sa lafu mbubb te reyuma la xamal te nangu ne amul genn coxor wala genn mañ ci sama doxalin te xam ne it mësuma laa tooñ waaye yow yaa ngi tëral ay pakkatal ngir jël sama bakkan aji sax ji dina nu àtte man ak yow te aji sax ji dina ma fayul ci yow waaye man duma la gàll loxo mukk coxor ci ñi soxor lay bawoo moom la lépp yàgg wax kon nag man duma la gàll loxo mukk bi daawuda waxe kàddu yooyu sool ba noppi sool tontu ne ndax loolu da sama baatu doom daawuda noonu sool yi kët tey jooy sool nag ne daawuda yow yaa ma gën a jub ndax defal nga ma lu baax te man defal naa la lu bon yaa ngi wone tey ji ni nga baaxe ci man ndaxte aji sax ji jébbale woon na ma ci say loxo waaye reyoo ma su nit dajee nag ak noonam ndax dina ko bàyyi mu dem yoonam ci jàmm na la aji sax ji fay ci li nga ma defal tey jii léegi nag xam naa bu wóor ne dinga falu te nguurug israel dina sax ci say loxo gannaaw loolu nag sool dellu këram waaye ab diir rekk lañu ca tegaat ki ñaan daldi jàppaat xolom ba xiir ko mu duggaat ca màndig ma di rëbb daawuda noonu la sol doon defe diirub juróom-ñetti at ndax kiñaan rekk waaye saa su nekk yàlla di xettali daawuda ci loxoy sol te ci mujj ga yàlla delloo na sool peyug jëfam déglu leen di ñu bind ci saar fanweer ak benn mbind mi neena gannaaw loolu waa filisti xeex ak israel te góori israel daw ci kanam waa filisti te ñu rey ca ñu bare ca kaw tundu gilbowa bi loolu amee waa filisti topp sol ak i doomam te ñu rey yonataan aminadaab ak malkisa doomi sol mettitu xeex ba jàpp sol noonu fettkat ya dab ko te ñu jam ko bu metti bi mu ko defee nag sol ne nit ki doon gàddu ay gànnaayam boccil sa jaasi te jam ma ngir ragal paaxe yi di ma jam ak di ma toroxal ki doon gàddu gànnaay ya bëgg ko woon a def ndaxte dafa ragaloon noonu sol samp jaaseem daanu ca kaw ci benn bés boobu nag sol ak ñetti doomam bokk nañu dee te noonu la yàlla faagaagale woon askanu sool ni mu ko waxe woon ci saar yi ci topp nag mbind mi day nettali ni yàlla jëbbale daawuda nguuru israel amunu jotu wax lépp ci mbirum nguuru buur bi daawuda waaye war ngeen xam ne daawuda buur bu jub la woon dafa bëggoon njub te bañ lu bon daawuda soppoon na yàlla aji sax ji ak xolam bépp kàddug yàlla ak ndamu yàlla ñoo amoon place bu jëkk ci xalaati daawuda looloo taxoon bi daawuda tàmbalee yilif israel lenn ci li mu jëkkoon a def moo doon indi tàntu màggalukaay ba ak gaalu kóllëre ga ca yerusalem yerusalem moo doon péeyub israel moo tax daawuda bëggoona a samp tàntu ndaje ba ak rendukaayu sarax ba ca yerusalem gannaaw ba daawuda toxale tàntu magalukaay ba yerusalem nag mbind bi day nettali ni mu dogoo woona tabax kër gu rafet ngir turu aji sax ji kër goo xam ne fala ñuy teg gaalu kóllëre ga te di fa jëbal yàlla ay sarax yuy muur bàkkaar wante yàlla xamaloon na daawuda ne du moom moo wara tabaxal yàlla ak kër waaye yàlla koy tabaxal ak kër di askan wu nara sax ba abadan déglu leen li yàlla wax daawuda mu ne ko bu sa àpp matee te nga fekki say maam dina fal ci saw askan ku génne ci sa geño te samp nguuram moom mooy tabax kër ngir sama tur te may saxal ba faw jalu nguuram dinaa nekk baay ci moom mu nekk doom ci man sa kër ak sa nguur dina wéy ba faw sa jal sax ba abadan ndax dégg ngeen bu baax kóllëre gi yàlla façon ak buur bi daawuda ci bis boobu ci dëgg-dëgg dig rëy la woon ba ëpp xel sax ndaxte yàlla digoon na daawuda naan sa kër ak sa nguur dina wey ba faw sa jal sax ba abadam lan ndax nguurug daawuda dina sax ba faw naka la loolu mën a ame naka la daawuda mi nekkoon nit kese mënoon a amee nguur guy sax ba abadan tontu laa ngi nii yàlla digoon na daawuda ne benn ci ay sëtam waroon na jot sañ-sañu nguuru ci kaw ak ci suuf ba faw dees na ko tudde buuru buur yi kilifa kilifa yi buuru jàmm ji nguuram dina gën a law te jàmmam sax ba faaw ndax xam nga ko buur boobu doon ndax xam nga kan ci sëti daawuda moo jotoon sañ-sañu àtte doomi aadama ci bés pénc ba tey nguuru diiru laaxira mooy ramukat bu sell bi juddoo ci janq janq bi bokk ci askanu daawuda ci lu jëm ci buur boobu mbind mi nee na yàlla kawel na ko lool jox ko tur wi tiim yépp bi daawuda nàndee pexe mi yàlla amoon ngir jaarale ramukat bi ci askanam daawuda daldi sukk di màggal yàlla naan borom bi aji sax ji man maay kan ak luy sama juddu ba nga àggale ma fi ma ne te rawatina borom bi aji sax ji nga teg ci wax lu jëm ci sa këru jaam ci jamono yu dikkagul te sore borom bi aji sax ji dem nga ba xamal yëf yooyu nit rekk cëy ni nga màgge yow yàlla aji sax ji kenn du yow amul jeneen yàlla judul yow ci li nu dégg lépp ci suñuy nopp léegi nag borom bi aji sax ji yaay yàlla te sa kàddu di dëgg te nga xamal xéewal gi sa jaam nanga barkeel sa kër jaam ba mu sax dàkk fi sa kanam ndax yow borom bi aji sax ji yaa wax te bu ci sa barke àndee sa kër jaam dina barkeel ba faw noonu la daawuda sante woon aji sax ji ndax limu ko digoon ci lu jëm ci rammukat bi naroon a soqikoo ci askanam te yéen ñi xam mbind mu sell mi xam ngeen xel ne lépp xewoon na tembe ni ko yàlla dige woon daawuda ndaxte ci askanu daawuda la rammukat bi wàcce maanaam ci jëmmam moom mi tiim lépp te yelloo teraanga ba faw amin kon fii lanu wara yem tey jërë ngeen jëf ci déglu bi ci njàng mi di ñëw bu soobee yàlla dina dinanu jëm kanam ci nettali buur bi daawuda ba jàng mbir mu buur seeni nopp su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel nu bàyyi leen ak aaye bi nekk ci mbind mu sell mi nag xelum yàlla ni mu xootee ak xam-xamam ni mu baree ba raw xelum nit ndaxte ci moom la lépp sosoo ci moom la lépp di jaar ci moom la lépp di dellu moo yelloo ndam ba faw amiin